asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbégi Diop ak Mame TV mbokk yi nag Abdoulaye Ndiaye Ngalgou taalibe Serigne Abdoulaye Al Amin l'infatigable de Tivaouane gis nga ko bilaay barke alxuraanul karim lekkul dara bàyyi jaami yàlla lekkul dara bàyyi néew di doole yi togg yi ngeen di dis ay tufe ay vermicelle ak ay macaroni bilaay barke alxuraan ak ay petit pois ñan la koy jox taalibe yi la ci daara yi yóbbu ci prison yi yóbbu ci hôpitaux yi ñaari nit laa bëgg ñu wax ñu Abdoulaye Ndiaye Ngalgu lii mu def lan moo ko ay Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ci Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ñas maa lay nuyu. ko tànn bu barki si naa moom it ndeyam yaa ngi toog gore rek mën nga leen a piyam bu yaram waaye du leen ko jox ab dëkk nag boo ci nekkee da ngay ñaan dolliku ñun dañoo ñaanoon dolliku yàlla dolli ñu bi ñu yàlla dollilee dañoo sant yàlla jul ci Seydina Muhammad sant nag Alaaji Ali mi ci biir nit di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak bi ki nag du ma ko sant Mbay Samb ndax ku daa jël rek potam rek fekk ndaali mu delloo ko ci xam ne cërëma moo ko moom waaye ñu ñaan ci waa fooñi gi fooñi Abdou Dior Fall gi lii ñu fondama te kër gii nag ak tamit Cissé te macha allah dara ñaaw fi dara mosu fee ñaaw waaye du ñu bëgg dara bu ñu déggee dara. Cheikh Adjaratou Faye Ndiaye Diouf jërëjëf Diouf ñoo ko may sàmm. fii lañ doon fanaan tabaarkalla macha ngeen def ba mu baax Amina sama taw bu jigéen bi bëgg ma ñuy ñaan ci yàlla tufi yi yàlla nañ ko togg téeméeri at ak juróom fukk ak juróom bu ñu ko defaatee yàlla na ànd ak wér ànd ak sutura sax daayima e eh, taxawaay bi rafet na kontaan nañu suñu xol set na asu mbàkke Assou Mbacké balla ay sa buri coow li coow li yow balla ay sa buri bi ci koñ bi bëgg tuuti waaye bëggul kenn ku ko muy Assou Mbacké tabarkalla laaw la ceeb moo daan dirigé te yàlla boo bàyyee dirigé Assou Mbacké sa wi yàlla leer ba mel ni biddiw ba tëru suuf yàlla na leen yàlla kontaan naa sama xol set na jërëjëf it. waaw oh, góor a meer loo xam nga ni. da ngay yëkkati baat bi ma tuuti may ma tuuti. maa ngi sant la ñuy gërëm. ñii mu ànd ñoom la ñuy gërëm a gërëm. waaye fii yéen ba taxaw lu fi war ñoo def defuñu fi dara danoo ñëw rek waaye defuñu fi dara. ñu ñaanal mbay nangu na ko taxaw jub wallaahi wallaahi bugul dara bugul dara moonte mul yaa yaa bu ne ndax nit baax na na ndax bokk yaa ko wax bilaay barkeel xuraan tante Ablaye ngal go loolu ah a ah, ki mooy yaay buri lee tax mu baax tu fe yaa ngi nii pusal tey la taalibe di noos tey la prisonniers di noos tey la waa hôpital di noos te dañ cee boole mburu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou Abdoulaye Ndiaye Ngalgou la ilaha illallah tey fan ak fan ngeen di def mën nañu kay tey Tivaouane la ñu wër ni ñu wëree woon Tivaouane si ceeb bi daara yi moom la ñu wëree incha allah Tivaouane ci ci ci da ngeen wër daara yi. dañuy wër daara yi dem hôpital dem hôpital dem euh, centre santé bi fu mu xam daal ni doomu ay doomu jullit a nga fa di woor ba ngoon jot daal Ablaye Diagne bi si na leen gëm. waaw moom bu daan Ablaye jàngal mu barki Seydina Mouhamad bu defee tey ci àll bi ñaari fan dinaa wari wax naa ko nag. waaye damay wëri Ablaye Ndiaye nga góor ah di nga ma gérer